ak waxtaane mag ñi ci loolu la ñu fas yéene jëm si waaye gannaaw loolu tamit li nga xam ne mooy teraangay berne moo tax ñi sant jaxate ak ñi sant loo rek mën nañuy xewlu waaye di bàyyi xel su ko defee rek dañuy jox Oustaz Moussa Wade ci lu toll rek ci juróom ba fukki minute mu yëkkati ko wax lan mooy sababu màggal ak lan mooy njëriñu màggal su ko defee rek incha allah ñu mën ko jox ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi seen kër te ñu génn ngir mën a màggal وعلمه ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليه عظيما والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ومن استطاع آثر واستنى بسنة إلى يوم الدين mbokk yi ñu ngi dellu nuyu yëpp dellu di leen ziyaara dellu di leen màggal di jox wàccuwaay bala suñu borom jox di la ndokkeel bu ci bis bii nga xamante ni benn la ci at mi waaye benn la ci weer wi waaye di benn ci waxtu yi ndokkeel ci bépp ummatu islam ñaanal leen suñu borom nii ñu yàlla maye kattan ñu fekke ko ren yàlla yàlla kattan la ñu ba ñu fekke ko déwén ànd ak tal ak fekke wér ak wérle te lépp luñ ci ñaan yal na yàlla nangu ko képp ku fi jóge yàlla na nga sa bopp ak yokkute ci biir ak ci biti ci barki yonte bi alayhi salaatu wa salaam barki Cheikhul Khadim mbokk yi fa tabarakallah di ndokkeel nag ñëpp rek teg ko ci loxo soxna Amina Lo ndax mbir mu si ne am na sabab bi su ko ko suñu borom jaarale ndax sëñ Pape wax ko léegi ndax jotaay bi kër gi benn la ci ëttu maam Seexul Xadim yi mu di benn pilier ci li nga xamante moom mooy Touba ndax ku ne xam na ne bis bi bisu sant suñu borom la bis la boo xamante ni kenn ku si ne bisu sant suñu borom la boo xamante ni Seexul Xadim ne woon ne képp koo xamante ni sa mbég sama mbég mooy sa mbégte. bis bi bu ñëwatee santal na ma si borom bi subhanahu wa taala maanaam santale ma ci suñu borom cant googu nga xamante ni kenn ku ne foo mën a nekk si univers monde entier yaa ngi dellu sant suñu borom ngir yàlla sant la Seexul Xadim bésam bii ndax ku nekk xam na ni yàlla dogal na liggéey bi nga xamante moom lay liggéey sëñ bi nga xamante ni yàgg na koo def dafa jóge fi nga xamante moom mooy njaareem dem fa nga xamante ne moom mooy daaru salaam sanc fa di liggéeyal suñu borom waaye di liggéeyal njool makka nekk daaru salaam ay njamul di liggéeyal suñu borom waaye di liggéeyal njool makka ba xëy mbokk maa ngi lay bëgg a wax sababu màggal gi de ndax mu nga daaru salaam mooy seex ya ànd ko ñi nga xamante ñoom ñooy taalibe yo ànd ko ñi nga xam ñooy mbokk yi waaye ànd koog rakkam ju baax ju maam Cheikh maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam nga xam mooy doomu baayam ba jël léppam jaay ko def ko jëndee ko taalibe ni ko Seexal Xadim yaay sama kilifa waaye yaay sama lépp nekk Daaru Salaam nekk fa maam Cheikh Anta waaye nekk fa mbokki taalibe yi di liggéeyal yàlla mbokki Rasulullah بخير سيح أنت منكو لبيك منكو خولال من جابوت جيغا خمو نيو في نيو يب جبلو سنياتا لن منكو كاتربين ديزنيو بلن جرم نيل فوق عن جرم نيل منكو بوكي تاكي سجمو منكو موي تيمير منكو نيل ياي سما مات ياي سما كيليبا مامسا أمباني سيح القادم ياي سما مات ياي سما كيليبا منكو جلنا لب جرم نيل فوق يا أجيا موي تيمير مينا لكو سنجي لنبيغا خمو موي دارو السلام Moko yombo de. 99 prix Cheikh Anta ñaata la mun ko 100 mun ko Cheikh Anta taalibe yëpp nañu topp sa ginnaaw bis ni que naa la ko ñoom ñëpp tey taalibe ñu ak yow nekk leen Daaru Salaam sëñ bi daan na bëri daal di jën dugg àll bi booba nee naa la Touba existé ku ba léegi de Cheikhul Khadim ne bëri dugg àll bi ñetti fan gisuñu Cheikhul Khadim ay bis gisuñu Cheikhul Khadim ñu ngi ne Cheikhul Khadim fan la ne man na commencé jaaxle ndax kilifa bi ñu nekkaloon. chaque jour que je fais mënuñoo toog waxtu goo xam dégguñu ko ko bët waaye ñu toog ay jamono ay bis te mosu ñu mënuñoo gis Seexul Xadim xanaa dinañ jaaxle de ñu ne Seexu Anta maam Seex Anta ni bëri wootaani ba yëpp ñu toog ñëpp ñëw mu ne leen ku amul lu dul lenn nag di benn kilifa di nag ñu dugg àll bi wëri Seexul Xadim benn dañ koy gis ñaar wala suñu bakkan des waaye moom déet ci waat ma ñu am te gis suñu Seexul Xadim ñu ànd ñoom ñëpp kenn ku ne àll ba lëndëmoon na lool bari na jiite i jànqalaar ak lépp luy lore ñu dugg àll bi ñoom ñëpp fan lañ jëm dañuy wëri Seexul Xadim ñoom daal dem nañ ba si yàgg te seeg benn waay ñu ni benn benn mbokk tukulóor la sama mbokk mbokk pël wala ñu ni déedéet ak sama ak ak rëbb la moom ne ko ñun de dafa am góor yàlla gu ñuy wër waaye mu ngi lamboo lamboo gu weex tàll waaye daal xam naa ni fan yii yëpp gis ñu ko ñu ngi koy wër mun leen bu dee mandarga bi ngeen ma jox de am na góor goo xam maa ngi ko séen romb naa ko fële mu xaw a mel ni ku ku tarax la weex tàll tuuti ba de ñun ko jëmu mu tam mun daal romb naa ko fële ñun ko dimbale ñu parce que kooku la ñuy wër. mu ànd ak ñoom mu ànd ak ñoom mu ànd ñu ngi ci àll bi lan la def ci àll mais Seexul Xadim la ñuy wëri parce que réer na taalibe yi booba mu ngay xëñtu ni yàlla mu ngay xëñtu ni suufu Tuubaa boobu la doon wër booba yonent bi alayhi salaam leer gi mu ngi koy jiire mu war a jëm fan suufu Tuubaa lay wëri boobu départ na Daaru Salaam waaye mu ngay wëri suufu Tuubaa parce que def na fa sept ans mu nga war a wëri nag fi nga xamante ni tey moom mooy suufu Tuubaa ñu dem ñu dem di ko wër ba mu seen ko gëstu maam ca Anta ne ko góor gaa ngi nële ñoom ñëpp ñu daw bi ñu liggéey wër Seexul Xadim mu ne leen toog leen ñu toog mu ne xanaa war ngeen a jaaxle ñu ne ah kay Mbàkke jaaxle nañu lool. ndax koo daan gis chaque jour waaye nga toog ay bés gisoo ko Mbàkke fu nekk dugg nañ fa ngir wër la Mbàkke buñ la gisul yow sa jëmm moo ñu gën a lekk moo ñu gën a naan. mbokk yi maa ngi jëm si li waral sababu bis bi eggaguma ci li sababu bis bi laa jëm mu ni leen am lu ma suñu borom doon wërloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxoon nañ ma ko muy suufu Tuuba suuf saa ngi fii ma doon mooy barab bi bi nga xam moom laa doon wër barab mooy jumaa ji tey nga xam mooy jumaay jumaay Tuuba bés ni que tey barab baa nii li ma war a liggéey lépp fii laa ko war a liggéey ndax fii la war a pese tey mbokk yi ba muy dem di dugg si àll ba booba àll ba ab gott la woon booba ab gott la woon kenn ñemewu fa woon waaye tey mam ma anta sa mam sa anta ànd ak ma ña ñoo demoon mëri sëñ Tuubaa ba fekk sa barab ba tey barab boobu nag moom dafa la toog ni fii mooy barab bi ma doon wër ñu fàkk barab bi mu commencé ko mu sanc ko commencé fa jaamu suñu borom di Tuuba ban jàkk moo fa jiitu na ma jàkkay Daaru Xudoos mu nekk fa di jaamu yàlla ndax mag ñi daawu ñu julli comme ñun déedéet julli gi ñuy julli bu ñu toogee fii rek daal suñu bataan déedéet ñoom fu ñu mën a jullee dañ koy defar jàkka ngir jullee fa ndax am xam nañ doolee jàkka déedéet parce que yow mi julli individuel ka dem si jàkka ja rawee na la ñaar fukki gi ak juróom-ñaar moo tax mu ñu ñoo yem mag ñi dañoo fonkoon jàkka mam Seexul Xadiim jàkka ji mu njëkk a sañ mooy daar jàkkay daaru Xudus ñu nekk fa di jaamu suñu borom di jaamu suñu borom wéetal suñu borom ba xëy njol màkka rasulullahi ne jaas ak sahabatul kiram ridwanullahi alayhim saafante nuyante jàmma sante ne ko Ahmadou loo bëgg Ahmadou wax ma loo bëgg njool maa kaay wax de mun ko bu fekkee da ngay wala cër booy wat mu ngi fi waaye fii ñetti weer dinañ la rangal ëmb zaman jamono garaatu xut bu zamanu jamono maam sax ma Bamba ne ko soxlawuma lool de la ma soxla romb na loolu ni njool màkk mun ko lebe mun ko li ma soxla romb na loolu mun ko lan nga bëgg mun ko yii la wër di Babacar Omar Ousmane Ali ak sahaba yii la wër loolu laa bëgg man bokk si mun ko loolu wees na gis nga moo tax doomu aadama doomu adam wala yàlla may wér la sa des yitte moo la koy may la sa des yitte moo la ko may doomu aadama lu mu amul ci àdduna yitte moom moo eggul waaye bu fa yitteem eggee mu egg fa mu ko soxla wu ma lool de man rasulullah ni ko lan nga bëgg mun ko li ma bëgg mooy mooy ñii nga xamante ni tey jii ñoom laa ñoom nga àndal tey ñoo ñooñu laa soxla ña nekk seen biir rasulullah ne ko mënul nekk maa ngi dem rasulullah dem ab biir bu daw mu del si wax ne Ahmadou lan nga bëgg ko la ma la waxoon dañu ma jëde bokk sa gaa yi laa bëgg bi jamaat ulay bi xiilati l axyaari ambiyaay bokk sa gaa yi laa bëgg sababu xaybati anna laha ana la minul jaa wa an fi dawri للمصطفى خير خلق الله منزلتان أبي ديكم الذي لو wax gaaw Maam Cheikh Ahmad Bamba ngi bëgg a joobe Rasulullah خلق الله منزلتان kan moo fi gën a bëgg Serigne Touba mbokk yi ci kaw bàkkaar suuf ñu ki nga xam mooy bàyyi Serigne Saliou Mbacké borom màggal ga lan wax gaaw خير خلق الله له للمستوى خير خلق الله منزلته من قال ما لو حللنا ما سبب غيبتي أن لا جزمه أن أكون الشافع عنك في قومي للقوم للمستوى خير خلق الله منزلته تروازمه أن أكون خادما في دومي لولا سبب خير خلق الله منزلته yow sama sang yow rasulullahi li may sàkku man yii rek la ñett yii la. lil mustafa xayru xalqillahi manzilatan. mun ba ba ca nekk rasulullahi ni ko ni ko bu dee ñi ngay laaj muy mbokk si saxaabatul kiram wees na waaye nag lii moo koy maye li koy maye xaalim pour nga egg sa yóbbatul mun man loo wax rek d'accord na. واي دغال ما مستري منتخا لم وخ رسول الله لا لو وخاو مزغا خير خلق الله منزلته مولكو لن لا يخ مونكو باي ما نجيك موي لن موي لن للمستوى غير خلق الله منزلته آه. لو جعلنا كل الوراء مونكو با تي ديك موي مول سيني موروم دا ما نما جو دالا جو جو خامتني امول كين واي دارا جوج لاكاي ماي ماي فلا نغا جندك ورال المستلا خير خلق الله منزله نيارو وانا كون شافل في قومي للمستلا خير خلق الله منزله موي ما دون كو خمانتني من ماي رم سما اسكان ناخ لول موي ليغا خم مام لاي ساكو بولي المستلا خير خلق الله منزله ترازم بما دون لغي كد رسول الله بو خمانتني دا ماي داك ديكو لغي يا جانا ورا كل الورا ko tamponel naa la ko waaye loolu pour nga am daraja jooju doo resté fii da ngay war a génn dëkk bi da ngaa war a. moo tax Rasulullah ba mu jëlee ngëneel ya jàll ko ñoom ñëpp teg ko ne ngëneel yaa ngi noonu góor yàlla yi départ leen ngëneel da ngeen ko waroon njëkkante keroog nee na Rasulullah ba mu tegee jur gi kenn ku si ne dem nga jël nga sa wàll. wal fadlu inda Rasulillah xarra. yàlla yonent yëpp départ nag ngëneel la jël na ko jox la ko Rasulullah la mu jox Rasulullah man xaadim loolu lay sax. borom baa ngi noonu bii day joxe bi di julli rasulun wa ba'sul liman laanoo wa man jaa yàlla moo jagleel rasulullah ñaar loxo yoo xamante bii da ci alak noonu waaye bii day joxe inna rasulullah sayfun yustadaawu bihi man sax man dooma nee na rasulullah loxom ba yàlla da ko def mooy jaasa joo xam day duma noonu ya muhannadun min suyufillahi batta na muy xewalee julli waaye noonu la siy duma noonu moom rasulullah nabiyuna babil huda eh, kooku mooy buntu yi wuya wala yu xaasabul hada kooku boo ëllëgee kon nag moom duñ la réglé inda alxisaabi almuxami yowma yaqumu ruuxu wal malaikatu safa moo ñuy jàllale fa kullu man anfaqa fi eh, maam sax man bamba neen ko di rasulullah képp ko jël sa dërëm lu mu néew nga dépensé mawlidi musarrafi eh, mooy guddi màggal gi guddi gàmmu gi waaye bisu màggal gi lu waay jël sa

لي كل زمها ويقول نعودوا الى سبيل ربك بالحكمه والموقدة الخسنة سلا البيرم تي سلا أمير اسلام لما ام تي دينا ديغا أمين امي نكو تلو دوغو عن العيون الغبا بارك الله سيرني حبيب جرجف جمع جانج جيغسي تي dañ doon fa tabarakallah salli ala muhammad قط لم يرى بعيدا ولم يرى بسيما كلتا يدي لا ظالمت لازم حزن وبأس لمن لا سيما رام الورانا إلى فان للمسرقين والفضل عند رسول يا ربنا فني جليتي سبي سفالو غالسي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فني جليتي سيري ساليو يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فني جليتي سيري ساليو موسى borom xel gam xabban ya rek lañ ci bëggoon te ni ñu ko bëggee woon defee ngeen ko noonu Laasana ñu nuyu ko baax ziyaar ko ci taxawaay boo am solo ndax moom yàlla dogal na ak Amina Lo ñoom ñoo nekkandoo ca impôt maa ngi fiy gis ñu bari ñoo xam ne ñoo Amina ñoo nekk fi ñuy liggéey ak ay wóolëreem ak parcelles ak wóolëreem yàlla dogal na nag mu nekk waaye incha allah di nga woyal bu neexee yàlla ndax màggal gi moom Serigne Touba liggéeyam ñëpp la ko liggéey ay yàlla dogal nag lépp loo gis bu ca nit sawaree dëkk def ko dafa am lu ko waral ndax nit bu la defee nu la kenn deful di ko jëf noo deful kenn Amina yàlla moo dogal mu nekk suñu jigéen nekk suñu wóllëre waaye muy jigéen joo xam ni. ñi nekk fii ñu bari mën nañu ko seede lépp lu muy sekk ak doomu aadama di ko defal def koy def te yàlla tax yenn say ay nit am lu jaxasoo lool ba mën a jaxase famille waaye Amina dina ci dox biir ak biti laa sana mën na koo seede ba jàmm am ci ñi ko yàlla booleel ci réew mi fii ñu sekk liggéey ak moom képp koo ci seen la ngay njëkk a gis mooy xar kanamam ndax baax ak laabiiram te jàpp naa ne bu fekkoon ci ko jooju nekkul ci moom xam naa laa sana mi kilifa la ak ñoom ci am ñiy toog ak ñeneen kon tey ñu bàyyi seen liggéey ñëw ñoom tontoo Demba Gueye ñoom ñëpp seen naa leen fi kon su yàlla dogalee mu nekk suñu mbokk nekk suñu sër ba pare nekk kattan ba seen Tuubaa Xaadimu Rasuul am ci loolu cër te ku xam Mamour Lo xam taxawaayam biir ak biti ci soxna bu ci soxna Baali Muntaxa ak ki nga xam ne mooy xalifa bi ñoom it ñaar ñu bokk ndey ak baay mu nekkal ko Touba mu nekkal ko fii kon daal Amina tey bisu cant la ñuy sant Serigne Touba Xaadim Rasoul oustaz Moussa Wade yëkkati fi lu am solo Habib Sarr feelu ko waaye ñun ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm te lépp nag sa taxawaay biir ak biti waaye moom tamit mu nekk nag taalibe sëriñ Xaadim Gaynde Lo mu jeex tàkk mbokkam la waaye mu takk la xasaay maa ngi seen sëriñ Samba si nekk directeur programme Thiès TV nekk suñu nijaay waaye tey bi ma ko gisee fii dafa nekk surprise waaye ñett su baaxee am lu ne ànd ak Moussa Diop nekk suñu kilifa ak Adja Ndeykat di suñu waajur kon daal su ko defee Habib ci ñaari minute rek laa bëgg nga woyal ko Serigne Khadim Lo Gaydel bu ko defee incha allah nag ñu doog a ñaan jumaa jaa ngi dugg